serigne touba ak tasawuf nak buñ ci wax duñ ci mëna a guddal ndax dafa wax mom ci jëmi bakam ni sama maqama fàddu na kudul yàlla ak kudul yonante xaabat maqaami an siwal baaxil karim waxan wasilati mu mel ni daf koo firil sëñ Basiru ndax sëñ Basiru nee na sëñ Tuubaa daf ko wax ne ko képp koo xam bëgg na maa xam te bëgg maa xame ci histoire jaar-jaar yi ñi fi jaaroon ak diw ñii la meloon ak toggale ay ay mbir képp ni kooka moo ma gën a réere ci àdduna nee na ku ko bëgg a xam bëgg ko jaar ñi fi jaaroon rek nee na ku koy umbale ba abat ngelaw nee na Sëriñ Tuubaa moo ko wax ni ko sama borom moo ma féetewal boppam ni ma ko ñàkk boolee ak dara noonu la tëje yoon yi jëm ci man yépp ba kenn xamul ci man dara Sharif Habibullahi wax na ni benn bëkk neeg bu bokkoon ci bëkk neeg Sëriñ Tuubaa daf ko wax ne ko سرين تبارك فوهني طفت بحظيرة الأولياء لما ور نجو ولي فإذا بكل ولي دخل من بابي جسنا عن ولي بني دفع أم بنت جار وإذا بعبد القادر الجيلاني دخل من باب التواضع جسنا عن عبد القادر الجيلاني تي تبنت بترخلو تلا جار ولم أزل خارج الحظيرة في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من وراء الحظيرة فأدخلني nee na ma ñëw gis ñag bi ñu tëj ko ku ne am na buntu boo jaare man may liggéey yonte bi di wër ñag bi di liggéey yonte bi di wër ñag bi ba yonte bi génnee loxoom ca bitim ñag ba ni ma sëq ni ma cëpp ci biir xiila man haasa xiila wa yaxluqu ma la taalam nee na bañ ne waaw kii kana nee na ñun leen danañ bind nag lu ngeen xamut xiila fa futiha li qaala fa futiha li baabun لم يفتح لأحد قبلي ولا يفتح لأحد بعدي ورد كما كان نانا يعني دنجما اوبيل بونت بو خامني مسوني كو اوبيل كين جيك ما تا دنج كو اوبيلات كين سما غناو تا دنج كو ديلو مو ملنا ملنا waye kon buñuy wax ci mom dañuy wax ci cadre bi biñ mëna jot tànn benn benn te jikko ndax Sëriñ Tuubaa dafa àggoon ci njobbaxtanul jikko yu rafet ak sax ji dafa àggoon ci njobbaxtanul jaamu yàlla àgg ci njobbaxtanul dëddu àdduna jaamu yàlla gi dawul dog guddi ak bëccëg suba ak ngoon dafa mel ni Sëriñ Tuubaa dafa jaayante woon ak boromam ni am njàppam du toj mukk te du jàppaat na ca saasi jamono bën da yor njàpp sëriñ Tuubaa dafa mel ni ku jaayante woon loxo bi di nàcc waaye daf koy wax ne ko nàcc ak ñàkk nàcc laa ci yemale waaye li ma sama borom digal danaa ko def loolu lépp nag teewul da daan wax ni bu leen teg seen bopp lu mel ni lii may teg sama bopp bu leen ko teg seen bopp yéen jaar leen ci fi ñu leen jaarloo rek li ngeen àttan ngeen jël ko li ngeen bàyyi waaye bu leen ma jéem a toppal sëriñ Tuubaa da daan woor koor gu tepparle lu cul bisu lu dul bisu iid yi daanaka dawul ko dog Sëriñ Tuubaa ku bañoon jëw la ku bañoon rambaaj la àggoon na ci béréb boo xam ne kenn ñi mu wuti taxaw di wax ak moom ci jëw mbaa ngay rambaaj bëgg gi mu bëggoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yamukaay la ndax dami wa wa awlaadil fidaa ulaw sama deret sama njabootu bopp samay doom ñépp joti naa ko yonente bi sallallahu cofeel kenn bu si àgg séddale ab dundam ñaari xaaj utihu ilaahi xaadiman lil wasilati muy jàmm yàlla liggéeyal yonente